ñun ñëpp dafa am loo xam ñoo ko bokk mooy jàmmi réew mi réew mi jëm kanam voilà yooyu ñoo ko bokk quoi. mais dégg naa ne euh, dañoo taxaw. ah rappeurs dañoo taxaw mais mbalax maa ñaa ngi bëgg a rey daal. mais nag mbalax maa yeneen mën de. non xon yi ah, ay xon xam nga dañoo ñeme sëriñ yëpp ay xon ay mango baxal ak ay gerte ak yooyu yëpp ci xuma yi la. non lu ne am na sama kii ñoom ñëpp balaa ñuy ñëw toj nañ ay ndaa sango ay affaire ak mais dara tey moom man man maa 3-0 bu ma rappelé nu Flo moom samay ñaan laa yor. waaw. alors Fallou gën nañ la gis ne ci loo nekk ba tax nga gëj ci biir milieu bi. maa ngi ci jàmm bu baax a baax a baax nekk ci bagage yi liggéey rek jël sama temps. Hmm? lan la ñuy xaar ci yow boo ñëwaatee. maa ngi pare maa ngi pare benn album rétro bu bu yaatu ñoo xam ni xale yi fekke ko yooyu laa bëgg a liggéeyaat indi ko incha allah waaw. merci beaucoup merci beaucoup. Demba nuyu naa la. eh siyaar naa la namm naa la trop. ci la naa la naka coono yi. man nag man man maa jéer ci mbukaay yi quoi. ok man man musique bi laa yow Demba ci loolu naka préparation ak événement bi di ñëw ak match tay bi. waaw mais lépp jàmb rek man a préparé naa samay samay joueurs donc samay équipe lépp pare na donc dégg neexu ñëw door après dem donc ñu xam ne lépp dëgg la. comme yaayar cumukaay ñaata nga ñaata bi ñoo war a am tay 2-0 rek. 2 may leen benn comme nu Algérie def gars yi. <laughs> merci benn rek. ada ñii comme dañoo dëgër bopp chaque année ñu jël ñu duñ dem jëli commerçant yi duñ dem jëli communicateurs yi lan lay wutati si ñun. ñàkk jom waaye dañ leen door tey ba ngeen ni niir ma la wàcc ba sero me Demba Guissé nee na ma yor seen cumukaay. Demba Guissé xaaral ba kenn gis ko. anamu kenn ñaata ñaata ngeen mën na nekk cinq ans. waaw am nga confiance de. si si prête à Dieu hmm. bu fekkee taw na nag ñoom ñooy mais bu taw ñooy gagné. <laughs> eh na nam naa la. maa la ma chérie. ci loo nekk ça va maa ngi nii alhamdulilah. maman tey kan supporter. ba man na je suis mitigée ah mais bàyyi ma gën a far ci euh, mbalaxmaan yi. xam nga far ci mbalaxmaan. waaw parce que man mbalax rek laay fecc ah. waaw damaa mën a fecc nag. léegi yow toj gis-gis boo doon joxe euh, bii ñaata bii nga xalaat. 2-0. pour mbalaxmaan. voilà. ah, ah. a confiance. waaw bien sûr dama am confiance parce que mbalaxmaan ma dañu mën a fubal. ah ma ah, dañu mën a fubal. Ah, léegi nañ toog xaar après mi-temps bi ñu waxaat. d'accord à suivre lay doon à tout à l'heure. <laughs> maa ngi lay fay soxna si. mais lan nga mais bon deuxième mi-temps bi de lañ ma ñu ma bon deuxième mi-temps bi man leen bon grave. yow ci ñan nga war a joué. mbalaxmaan yi man ci mbalaxmaan. waaw léegi lu tax ñu teg la ñu ne deuxième mi-temps nga joué. parce que classement bi paraît-il Eric da ko def depuis euh, trois jours de cela bon boole ma woon nag ci classement premier mi-temps bi mais nee na ma deuxième mi-temps man ko ok ah, d'accord. léegi nag yow tey sa gis-gis ñaata ngeen xalaat ni moom ngeen war a dóor. score score bu rëy. waaw score bu parce que attends euh, rappeurs yi mosuñoo gagné mosuñoo am victoire ah oui looleen man. léegi maa ngi lay xaar deuxième mi-temps. amul naa joxe ci deuxième mi-temps ba def lu rëy. match bi tas na Mourtala. première mi-temps bi. waaw première mi-temps bi xam nga man damay joueur bu mag. léegi moo tax foog ma toog nii xool match bi fan laa mën a jaar pour rey gars yi ndax tey dama indi samay ñetti bii te ñetti bii yi ma indi dama ko jël au sérieux bugguma dara lu ma ko yàqal. waaw au calme rek. alors yéen Malaxman nag tey ñaata bii ngeen xalaat ni moom ngeen war a gañ comme rappeurs yi ñoom musuñ gañe. en tout cas daal man indi naa ñett. Dame Sène maak moom ñoo ànd bi ñu ñëw gis nga mango bi mu yor sëriñam beeg ko jox donc xamal na ma ne moom gàtt gat jëlee na ñaari bii Thiès pour indi ko fii cinq yi moom assuré na pour l'instant waaw pour l'instant rappeurs yi tey dañ leen di gaañ bu yeboo ñu def nànk ñu dóor leen nànk buñ ko metti leen ñu dóor le lu métti ñu ñibbee nu métti. maa ngi toog jeex na ma toj fii.

xarit Seck Amina. Gouda Amina waaw Amina bi. Gouda Amina ak boo yëngal dafay fii yëngal. da ngaa gis ne dugal fii bi rek Wally Seck ñëw nga xajal ko lan Amina. waaw mais loolu la parce que moom suma frère la suma ma génn mu doxal ndax moom mooy man maay moom du ñaar lenn. Dumbaala ak Rumba.

ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen ñaanal yàlla bii bi nag dañ ko tuddee Nguuda Amina ak Boy Siri dafa yëngal waaye nag bàyyi leen nañ ko la presse sénégalaise yéenay bàyyi bii bi mbaay sant naa ko gërëm naa ko mbay naa ko sama baay le ministre des sports Matar Ba yàlla yàlla guddal fanam te wéral ay cëram su ma xool sedd na ci yéen ñëpp jërë ngeen jëf non bi ma waxee sama loolu ne que rappeurs yi ñooy gagné loolu yàgg na. mais rappeurs yi bu ma leen faralee kañ la. kan laa mos a faral. rappeurs yi laa mos a faral. rappeurs yi laa mos a faral. am nañ dara sumbulu moo ñu faral sumbulu. mais jagana bisu. effort yooyu maa ngi nii. grand bi mbalax maan la. Thank you. waaye kii bi moom wéy na waaye. Fatou Ndao moom wéy na waaye loolu la ñu wax Paja. won leen daal ne hip waaw tey ban mbégte nga ci am euh, ak nga ci yokk waaw euh, sant rek ndax euh, ñun initiative bi dañ ko jàppee nii pour bégal sénégalais yi xam nga dafa bëgg lu rafet. sénégalais dafa bëgg ñu juboo donc dañ leen di wan ne rek famille lañ ñu ku ci ne mi ngi sa studio mi ngi sa staff say fan club di liggéey mais lépp pour Sénégal la kontaan nañ man bu ma sañoon lii chaque dimanche la am. Mhm. donc yow tey euh, ñu gis ne tey tu n'es pas équipé pourquoi nga nga ñëwee nii sans équipement quoi. waaw non dama ñëw fekk gars yi commencé première mi-temps mais maa ngi xaar deuxième mi-temps bi. ñëw dafa mel ni nag yow ci mbalaxmaan yi nga nekk. waaw waaw. ah mbalaxmaan yi daa mel ñooy ñooy commencé dee de. non dañu leen remonté. ah incha nga gis si match ñaata lay demee. 10 lañ leen di dóor <laughs> may profité di jox rendez bu ñëpp la 20 septembre incha allah grand na ko ñëpp teewe événement Sénégal la Pama Dieng moo koy def di ci rendre hommage papaam ak lébu yëpp. jërëjëf kon gars yi ñoo ko déggandoo Pama le 27 incha allah. d'accord ce qu'on va faire maintenant. toute la presse sénégalaise devant le Saliou Khoulé Rabat waaw. Wally Seck nuyu nañu la. dañ ñu mën a rek. waaw lan nga lan nga ñuy mën a wax si bi Malaxman contre rappeur yi. waaw ñu ngi fii mën nañu 4-1. waaw man dama tardé. waaw mais dañuy defar rek ñu jéem a égaliser gagné parce que 45 minutes la dañuy defar rek en fait a trop d'arrêt quoi match yi moo bëri la gëj a dégg foo maa ngi yëngal yow. yaa ngi yëngal xanaa newoo fi. xanaa maa ngi fi maa ngi yëngal jamono ah. genre euh, dañuy organiser wu rek ñu toogaat daal di après bu ñu ñëwaatee du mais euh, gis nañ fi lu ne ah, remontada xam nga ci lañ ko fekk dañ leen remontada. Ah, ah, mais boo ko ñu ne gis ngi ci kaw est-ce que loolu loolu parce que ba bal bi ci il faut que mu jugee ci pour mën donc au début yéen a ngi doon gis dañu doon wàcc ba ci suuf di jël mais après loolu suñ ko naree continuer après du am effort bu ñu xam ne dañuy dugal dañuy organiser waat rek dañuy toogaat rek ñu dee ñu daal di defar suñu organisation après on va gagner mais gis nañ day gën a dox ñu ngi xaar loolu donc euh, dañuy toog rek waxtaan eh waa Grand Théâtre <laughs> dañuy dañuy dañuy dañuy toog rek après ñu waxtaan mais eh, toog leen ngeen seetaan. yow xalaat nga ni yéen xalaat nga ni deuxième mi di ngeen amaat dara. est-ce que dégg ngeen anglais. wait and see. Ah. Ah, non xeeñagul xeeñagul ñi ngi ñëw gañe leen léegi incha allah ñi ngi ñëw 4-1 waaw mais amul problème affaire bi njëkk a sóor taxut a njëkk a ñi ngi ñëw léegi remonté leen ci kàttanu suñu borom 4-1 neexut a récupéré City neexut mais yàlla baax na dañuy ñëw léegi dugal non dañuy ñëw léegi remonté incha allah ah, waaw dañuy ñëw remonté kon ñu ngi xaar

Il tamit a yi ci ay ay donc merci à tout le monde je peux même dire que grâce à cette population sénégalaise Gaka est de retour donc merci tout le monde merci beaucoup.